Euh, monsieur Abdoulaye Wilane maire u ñu ngi lay nuyu di la dalal. Ah, asalaamaaleykum wa rahmatulaahi wa barakaatu. Uh-huh. Kaffrine euh, fas yéene dalal euh, njiitu réew mi ci tournée économique yi nga xam ne mu ngi koy waajal tey jii foofa ca kafrin lan ngeen di waajal ngir teeru kii di njiitu réew mi. lépp lu war njaboot jëm ci kilifaam lépp lu war nit ku ànd ak nit yaakaar ko wóolu ko. di ko liggéeyloo mu taw di la jébbal li nga doon sàkku ci moom di ko xaar ci moom. Mhm. loola moom loolu la ñuy teertoo président de la République li mooy ñaanal ko yàlla ndax mooy njiitu réew mi ko Sénégalais yi fal mu jóg di ñëw yàlla na rek si jàmm. traversé euh, euh, jàmm tukki ci jàmm ñëw ci jàmm dund fekk ñun jàmm wéy ci jàmm dellu si waat ci jàmm ñibbiwaat ci jàmm. Mhm. moom ak ñi koy toog aar ñi toppatoo karangeem ñi koy gunge ak ñun ñu ngi fekk yi ak ñi war a ñëw daje seeg moom fii ci Kaffrine. Mhm. lépp loo xam ni nii war na as gor naw euh, njaboot ci kilifaam ñu koy def teral ko teeru ko fatagal ko waaye itam gërëm ko parce que yoonu Nganda wii. <laughs> yoon wu ñu soxla woon la du yoon rek Kaffrine Nganda dafa traversé ay commune yu bëri Kay Kacot ak yeneen commune bi ci tegu mooy yoon woowu mën na lëkkale Sénégal ak Gambie waaye lëkkale Sénégal ak euh, le sud de la Casamance. Mhm. yoon woowu am solo la ñeent gàtt ak topp li koy laaj yàlla dogal suñu candidat nekk président ñu ànd ak moom di liggéey bokk ak moom projet ak programme bu ñuy liggéey Sénégal. Mhm. mu liggéey ko ndawam la suñu ndam la ñun ñu ànd ak moom kenn duñ ci génne kenn ëppale wuñu si kon bu ñëwee danañ ko teertu sargal ko lii dëgg mooy dispense hôpital bi nga xam ne euh, dañu jëloon hôpitalu centre centre de Kaffrine hmm. defar ko hôpital numéro un te yelloo woon ko sax président Macky Sall ñëw hmm. dig ñu hôpital yàlla may ko mu am wërsëg bu toll ni def ko réalisé ko ci biir bu gàtt muy hôpital cent cinquante lits am jumtukaay yu ak yu xarala yu ñëw yu ànd ak jamono mu ñëw di ko ubbi naan lépp yembagul sax kon nag duñu mën di gërëm ko sant ko euh, sant yàlla di ko santale yàlla di ci sant yàlla. tey jii boo doon xayma ci benn taux euh, réalisation yi nga xam ne jot nañ ko def ca Kaffrine euh, depuis dernière visite njiitu réew mi foofu ñaata lay doon. waaw li nga xam li nga xam daal mooy bu dee yoonu Ngànd wi moom mat na sëkk ndax ñuul na kukk mel na ni goudron bu baax. mel na ni goudron bu baax diggante Kaffrine ba Nganda. Hmm. loolu nag mun mun ñoo lu daanaka cent pour cent xayma xaj na loolu mën a wax. bu fekkee am na lu ci manqué loolu techniciens yi ak bam xam-xam yi ñoo ko mën a wax bu dee ci hôpitalu Kaffrine bi it tabaarkalla macha allah moom kenn gisagul hôpital bu mel nii ci Sénégal fii lay amee Kédougou ak. kon nag ndegam ni ñu leen njëkk daloo ñu ngi sant yàlla di wax ndokk euh, dëgg la hôpital moom boo ko inauguré ba pare mu nu muy dox ci nga koy joyanti yi di koy ñoŋal di ngay mottali yi matuloon di ngay seet di ak yow noonu ak joyante donc dañ maa loolu nag dëgg dëgg dina jafe ci entertainment nii nga nga nga lim lépp lu président moto dige wax fu mu ci toll en tout cas xam naa ne bu dee ci promotion dara amagut wax dëgg yàlla mhm. bu dee ci euh, université si dalum mu ngi tàmbali ña nga cay dem bi war a am mooy bi ñu tuddee Baye Niass Alaaji Ibrahima Niass Euh, fii ci Kaffrine moom campus bi ñu ngi koy ñu étudiants ñu ngi fi. Mhm. waaye euh, euh, moom des na njaw des ñoo xam ne bu dee ci yeneen yi nga xam ne ci mooy tribunal régional tribunal de grande instance. Mhm. prison bu bees centre régional bi nga xam ne bëgg nañ koo bàyyi nag duñ koo def ndax ay kenn xamut bu dee bu dee ci yooyu en tout cas njaw des ñoo xam ne sotteekul am na ci yoo liggéey ba tàmbali na am na ci yoo xam ne nii. am nañ suuf seeg bërëb bër yëpp waaye na bu dee ci bazar bu bees bi la bu dee ci sàmm fulaat yi nga xam ne nii ministre Omar Gueye mi ngi yore ministre de la pêche dig nañ ko fii ba dig ko ci conseil des ministres mat daanaka léegi deux mille quinze ba deux mille vingt et un mhm. dara benn birig amagu fa dara demaguñ ko fa bu dee yoonu maabo wi ñu bëgg ñuulal ko te xalifa des mourides ñaan ko ñu mu yoonu njum mhm. euh, daaru minam daar surakoñ romb Kaffrine boobay France banli xateen bu dee yoonu Kaffrine kàmb ya fa nekkoon ak uh, doodaan yi doy waar yi ak uh, nan ma doon dañ wax ne lan la nekk ci budget bi. Mm. ba tey itam courant daal di xëddeen. alors bu dee ci courant bi moo xam solaire na dëkk yi nekk Kaffrine à part yenn dëkk yi nekk ci kaw tali bu mag bi amuñu ci uh, panneau solaire yi. Kaffrine commune trois cent la am te mille cinq mm-hmm. ñoo fa nekk boo ko toppee noonu liggéeyu xale yi dégg ngeen coow li ak mbaboor amoon bi waaj a waxee ni gongo. Mm-hmm. xaj na am na lu gongo waaye am na lu xeewaani moƴƴaani wonaani taw alors léegi nag euh, li des mooy ñun duñu boroox ndax boroox du gërëm ne mu daaw li mu def ku ko def dañ dañ war a wax maanaam ku ko ko war a bëgg li daal moom si tey tey tey li ko yëkkati mooy ñetti mbir yii ñaar yi moom ñëpp xam nañ ko mooy yoonu Kaffrine Nganda wi mhm. muy hôpital bi ci wàllu béréb boo xam ne nag dañu fa def full emploi ñetti minutes ñëw nañ fi pour seet béréb bi te béréb bi tam yaakaar naa ne mucc na it mën naan na mën na mën na mën na dëkkoog mhm. kon daal ñun dañ koy danañ ko bot danañ ko kañ ndax li mu def bu yemoon rek tax turam dootul raas histoire Sénégal ndax doléance su 40 ans ak loo xam ne nii hôpital boo xam ne mën na faj waa Guinée faj waa Guinée-Bissau faj waa Mali faj waa Sénégal ah boobu hôpital bu ñu ko defee tamit buñ dee gor buñ dee citoyen yu bëgg waa góor ca ca ñu ngi koy wax waaw góor jaaraama jaw wax ci politique jamono ji li nga xam ne mooy local yi euh, fii lekk six wala sept mois dinañ ci jëm euh, ndax euh, date bi daal nañ ko fixé foofa ca Kaffrine ndax ki fa doon maire di Abdoulaye Wilane pare na pour laajtewaat mandat dañu ne démocratie boo nekkee di wax bañ dénk la baa ñu tal la wax daa war a wàññeeku waaye mënumaa ñàkk a wax ndax man maire laa mhm. di jaamu soxlaay dëkk bi ñu fal ma waaye ma nekk itam représentant commune bi ci kaw noonu it ma nekk député à l'Assemblée nationale war a waxal askanu Sénégal yëpp ak département Kaffrine région Sénégal. Kaffrine. di ñëw ni ma nekk député daaw kon man sama wax du rek ko wax boo xam ne day neex ñëpp ku def lu baax ma wax defal lu baax lu manqué ma ne manqué wu la manqué na loolu moom bu waxee ne dama waar dafay impliqué responsabilité maa ngi ñaan yàlla li ma nekk man mat ko sëkk euh, euh, te du du ànd ak larbinisme du ànd ak griotisme waaye dafay ànd ak objectivité ak sens de la vérité. Mhm. mais du dëgg yëpp ngay wax ak boo koy du am na ko war a waxee. bon nag man bi ma nekkee maire ba léegi nii. Mhm. li nit ñi mën a seetlu mooy li Kaffrine am ma ne li Kaffrine am defal naa ko ci waa Kaffrine seeni soxla ak seeni li Kaffrine amut maa ngi koy liggéeyante ko looloo tax ñu am mairie bu mel nii nga xam ne bi président ñooy def conseil ministre bi ko defoon jërëjëf noonu it laa àndee ak Macky Sall mi nga xam ne maa ko tànn fal ko ak sama parti 2012 tollanti ko 2019 li ñu war a yëgal ministre mi ak ñi mu àndal ñu ngi ko yëgal bu ñu defee xayma bu ñu defut ñun war def ko. li ci des mooy su fekkoon damaa nekk ci dëkk bii. Mhm. di caaxaan ak a tappale ak a salfaañe ak a def lu jaaduwul bu ñu tolloo fii nii bu ñu la wutal wuti dañ lay dañ lay tuddum ne ma ràpp tëj wut keneen topp bi kon nag ndokkee man ndokkee la yaakaar ba nga kenn mënu may dut baaraam ci lu ñaaw wala jëf di ñaaw wala jikko ñaaw daan na nga wooyee maire Dakar Juma léegi maire social la ñuy wax waaye di wax it ne maire bii ñu fi am ñaari poste santé la fekkoon ak centre de santé bu tuddee hôpital moom bi mu baloor ñaari ma ñaari centre poste de santé amélioré ba noppi euh, tabaxaat benn centre de santé mu moom mooy district bi kon léegi hôpital bii ñuy bàyyi di dem ci bu bees bi dañ ñu koy jëlewaat parce que su moo nekkoon suñu centre de santé de référence mu nekk dans point de référence ma amaat beneen centre de santé de euh, euh, euh, secondaire ah loolu man maa ko liggéey si nii ak sama conseil municipal te yàlla maa ngi si sant yàlla bu baax. bu ñu gisee bu dee ndox. Uh-huh. bu dee wàllu ndox la. ko ba ci quartier yi nga xam ne sax bokkul ci commune Kaffrine courant bi itam ba mag nañ ko ba nga xam ne Senelec bi ñu ngi ñu leetar ñu ni mairie Sénégal yëpp mën nañoo wax ñun waa Senelec ne ci wàllu technicité. ci wàllu ampleur u liggéey bi ngeen def. yéen mhm. rek ko fi def mandat bu ne def nañ ko. ñaari mandat mandat bu ne extension ngi ngi bëgg nag léegi état bi SONES ak ministère de l'eau. Mhm. dimbali waa waa ñi yi nekk ay lex lex o ak kenn euh, euh, euh, o. Mhm. ñu fexe ba citoyen bu ne mën dugal këram ndox courant bi it kenn la ne kenn ka noonu ndax buñ ci pare ba ba connecté ko ci réseau bi existé. Mhm. kon kay li li gën a jaatu gën a ñoom mooy exporté ko. wàllu emploi li ma ci kay macha allah emploi fixe ak emploi temporaire bu dee ci wàllu setal dëkk bi ku ñëw Kaffrine xam ne set moom ko dëkkalee Kaffrine ak beneen dëkk. lo dans tey nag gis naa bi fi indi ay panneau di def loo xam ne nii gaaruñ ci maire ba yëgaluñ ko xam ne dañoo bëgg wax ndam loolu ñu ci am ak ak rond point yi ñu lay wéyee ñu boole leen ci wéy yi waaye yéen ko parce que. Euh, euh, tabarkalla macha allah ñun ñoo jamonante kon ñun suñu wërsëg bi ñun ñëpp te lu ñu fi def daf ñoo war lu ñu ci war rek njaaraama rek dañuy soññu ñaanu pour ñu gën a góorgóorlu waaye du pour ñu demoo ak a daagu. kon ñu jàpp ne Gandi daaga bu dee stade bi bu dee stade bi. Uh-huh. bu ba bu ba projecteur ko fa indi. donc te kon président Macky Sall digoon nañu stade régional bu bees stade multifonctionnel am ci doomi Kaffrine ak ñu bëri ne Kaffrine yelloo nañ ko bàyyi euh, jag-jagal hôpital am bi nekk. waaye waaye wax dëgg yàlla lii ak ak fit xale yi Sénégal rawatina waa Kaffrine. tollu ci wàllu sport ci sport yëpp. Mm-hmm. yeyoon nañu régional comme ni ñu yooyee tribunal de grande instance comme ni ñu yooyee prison bu bees parce que loolu moo ko àdduna na comme ni ñu a promoville bi a xam ne. a ko dig diggante diggante diggante a naka ni te ba naka ni France daal di ko dem lépp dafa jaay tax gerte bi àddina. kon nag mm-hmm. ñun bu ñuy liggéey nañ continuer dañoo juddu pour liggéeyal suñu réew pour liggéeyal. suñu dëkk hubbul watani min al iman donc liggéey boobu tokkewuñ tàyyiwuñ li ñu yéene woon tey lañ gën a yéene lu ko gën a baax te incha allah fekk loolu tey jii ñu naan ca Kaffrine ki di Abdoulaye Sow euh, dafa am ambition doon maire wa euh, Kaffrine euh, ñenn ñi sax nee nañu commencé nañu def commencé na def ay jalon maanaam def ay activités yi nga xam ne moo ngi wane boppam foofu noo jàngatee mbir mi. am na ci droit nga sañ a mhm. kenn ko ci mel. yéen ngeen nekk yéen ñëpp Benno Bokk Yaakaar tey jii ndax am nañu yaakaar Benno Bokk Yaakaar dem ànd euh, manko ci local yi ñu jëm wala ku ci nekk di nga samp sa ndënd ca fa nga ne. ñun waa parti politique ñu bàyyi ci Benno Bokk Yaakaar intérêt wu Sénégal la fonk suñu kàddu ak liggéeyal askan wi ànd ko président Macky Sall te du ñu du ñu du ñu sew du ñu tuuti ci ànd bi maanaam dara lu yàq Benno bi du ko ci ñun waaye nag. ñun suñu bu nii danañu respecté ñi ñu seqal mbir mi. Mm-hmm. bëgg ñu mit ñu respecté ñu. ndax lañ bëgg a andee li ñu des mooy Benno moo gën di lépp Benno ba ñu gënal waaye bu Benno bi mënta am kenn ku ne dafa war a rafetal li ñuy def parce que ëllëg dina am dama ne man nekk naa maire a nekk ci Benno nekkaat député nekkaat maire. Mm-hmm. te terewul Abdoulaye Seydou Sow nekk li mu nekk. terewul keneen nekk li mu war a nekk kon nit ñi dañoo war a gëm yàlla wóolu yàlla te xam ne ci démocratie. askan wi ñooy fal yàllaay dogal waaye itam ci parti citoyen euh, militant militant euh, euh, détenteur de carte habilité ñoo lay jiital waaye yàllaay dogal kon nag nañu nangu dogalu yàlla te liggéey te liñ ci mooy góor ca wax ja lépp lu la sonal nangul nangul nga ko waaye nag boo dul nangul sa nawle li nangul ah bu sa nawle waxee ne ni nga doxalee jaaduwul kooku moom ku ca sikki sa boobu noonu xaj na dafa fekk mu yéeroon ko ci kànga rek waaye ñun loolu suñu mbir man daal li ma xam ba def mooy Kaffrine fi laa dëkk fi laa juddoo fi laa màggee li ma nekk euh, politique da ngay am base politique waaye base bu ca base sociologique et base sociale et base affective yokkoo day gën a nangu. kan moo am base politique monsieur le maire. li ngay wax man man man sama bopp laa mën a wax yaa ngi dégg. Hmm. li ma xam daal mooy am naa kilifa muy Aminata Mbengue Ndiaye ñun ñëpp ci bennoo am président Macky Sall bu tabb jotee mala fal candidat danañ ko waxtaanee ñi ko sëkk ak ñi ko digaale ñu xool naka la gënee ak naka la gën a rafetee su nekk ñu seet naka la jaatoo loolu nag dañ koy bàyyee suñu kilifa ak ñi nga xam ne ñoo sëkk dëkk bi loolu daal mooy li nga xam ne moom laa ci mën a wax fàttali ko ko ba waxaat na ko mm-hmm. man Euh, dama bëgg mat li ma doon nekk njiit yomb na mais mat kilifa lu jafe la te dama bëgg mat kilifa. Euh, waxtaan ak député CEDEAO bi nga doon tey la xew ca Mali euh, jaaxal na askan wi yëpp communauté internationale ñu bëggoon a xam sa xalaat ndax tey jàpp nga ne commission CEDEAO ga fa ne dina andi wala sax mën naa andi ay saafara ci bi lépp instabilité. xam nga man député CEDEAO la session hmm. ordinaire heure bii am na ci Abuja. Hmm. waaye jomb naa. Euh, président Macky Sall di ñëw sama région waxuma sama dëkk sax mais mu ñëw sama région mu di ko wuute. Mhm. loolu moo tax léegi président Macky Sall génn tamit du ma dem mission CEDEAO bi puisque session bi dina continuer waaye daal. Mhm. en tant que député CEDEAO li ma xam mooy. Mhm. la xew Mali lu war a yitteel waa Sénégal la. ñëpp a ci war a ñaan yàlla jàmm ñëpp a ci war a wu pexe ndax li xew Mali. Euh, du du ja du du du du du Sénégal mën na cee ñàkk a mucc. Mhm. suñ ko bàyyee mu law. Mhm. ndax la fa am la la ne doom bi mën naa yegg Sénégal. Mhm. te dama lay xamal ne situation Mali di ko gën a garaawal ba ki démb li xew Tchad. dana dana si dara waaye ñëpp xam nañ ne daanu gu Kadhafi daanu Libye tasaare ko bokk na ci li gën a lëjël problème Mali kon nag njiiti CEDEAO yëpp ak. mbooloo yi askan yi nekk fii borom baat yi nekk ci biir CEDEAO. Mhm. ànd ko ak waa francophonie ànd ko waa waa Union africaine ànd Nations Unies kenn ku nekk ku ci bëgg jàmm ci adduna bi. Mhm. war na cee sóob loxoom waxuma la rek euh, mbiru mbiru terrorisme waaye mbiru gànjar yi am muy pétrole gaz or minerais yi nekk ci Afrique de l'Ouest wala Sénégal wala même sunu géej gi yooyu yëpp dafa itteel ñoo xam ne ñun liñ suñu intérêt du leen intérêt mhm. moo tax. maa ngi wax ne maa ngi masawu en tant que député de la CEDEAO. Mhm. peuple malien. ñu bàyyi ne Mali le Mali est éternel. moo tax may demander toute la classe politique tous les dirigeants tous les leaders d'opinion maliens ñu ñu seet seen bopp te xam ne ñun dañ fi jëlee ko te Mali di fi jëlee ko Sénégal du fi jëlee ko CEDEAO du fi jëlee ko loolu moo tax maa ngi masawaale également maliens yi nekk Sénégal. Mhm. ak chaque waa CEDEAO yi dëkk Sénégal euh, euh, wala nekk mbiri Mali. dëgg dëgg lu garaaw a garaaw la. lu yéeme la loo xam ne bu ñu tegul ay nasaxal a waaye mën naay wànn Sénégal te yàlla tere yàlla nañu mu sol loolu boo amee fitna dina teew Sénégal bu teew boo xam ne nii waa Sénégal du ñoo koy sottee waaye ñoo cee gën a loru. ñu lay jaajëfal bu baax a baax monsieur le maire Abdoulaye Wilane.